أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي سنو بروم noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko naa loolu mbokki jullit yi ba tey noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala toll ci suura al araf bi iznillah ñuy jël tey ñaari aaya aaya 187 aaya 188 ñaari aaya yu ñuy jël ñeenti mbir ñeentee ba ca jiitu mooy muraadu ilmu saa ila allahi waxda fa kullu masulun anha gayru llahi laysa alamu min alsaaili mbiram bés penc loolu ci yàlla tabaraka wa taala la aju ajuwul ci mbindeef kooku yàlla kese wahdahu ñi koy laaj ak ñeneen ñëpp ci mbiru yàlla la nekk nekkul ci loxo kenn nekkul ci loxo bépp benn mbindeef kenn mun laa wax ci mbirum yowmal qiyaam dara du góor du jigéen du jinne du malaak du yonent du kenn ñëpp xam ngeen ne ba jibril ñëwee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ko laaj ay laaj laaj ko islaam laaj ko imaan laaj ko ihsaan ba laaj gu mujj ga mu ne ko kañ la bés pénc lan la ko yoneen tont mal mas'ulu anha bi a'lami min as-sa'il ki koy laaj day gënu koo xam ki mu koy laaj xanaa yow mi koy laaj yaa ma ko gën a xam man mi xaw ma ci dara waaye jibril ci boppam sax xamul yowmal qiyaam kañ la kon mbirum yowmal qiyaamati kañ la dafa bokk ci xëy buy kenn xamul kañ la képp koo dégg mu ne wax xam na ko soo ko ragalul wax ko yow ko ñeme yàlla nga ñaareel bi mooy li saati astoraat waaye moom bis pénc xamuñu kañ la waaye am nay mandarga am na ay trace ay mandarga ay xàmmekaay yoo xam ne kat yonent bi alayhi salaatu wasalaam def ñu ko bàyyee ci sunnaam mu wax ñu kat su ngeen gisee lii xam leen ne yowmal qiyaam yege si na kañ la bis bi di nekk tamit xam nañ ko yowmal qiyaam ban bis la xam nañ ko mooy bisab àjjuma ban heure la loolu tamit borom xam-xam yi wax nañ ci ne tàkkusaan lay doon mooy tàkkusaan googu yàlla diggiñ naan wàll asr waaye ci ban ci ajjuma yi la moo tax bisub ajjuma doomu aadama rek mooy noos rabu àll yëpp jour ajjuma dañuy sëngéemtalu seen yaram yi day dee ndax dañ naan tey la buñ toogee bi nag ba waxtu wi passé bokk ci ñu fireeku nag waaye doomu aadama rek nga gis vendredi muy préparé di dem weekend samedi ak dimanche di mooy yàlla te vendredi la koy préparé li saati asrat baaduha fi lkitab wa baaduha fi sunna bés penc dafa am ay mandarga yenn yi mu ngi ci alquranul karim yenn yi mu ngi ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na loolu nag nekkul ne daf ko dafa joxoñ ne temps la bu ñëwee mu am déedéet waaye wa innama hiya muqaddimat ay tegtal la tadullu ala qurbiha faqat ay tegtal la yu ñu yonente alayhi salaatu wasalaam di tegtal ne bu ngeen gisee jigéen ñi nangam bu ngeen gisee góor jigéen bu ngeen gisee sàngara bu ngeen gisee carte bu ngeen gisee comme tey nuñ ko dundee nga xam ne bu fekkoon ne rek dañoo dëggu dañuy yëg ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam lim ñuy wax ci mandarga yowmal xiyaam moom ci sunnaam jeex na tak yëpp gis nañ ko teg nañ ci bët wala ah est-ce que sax suñ neexee ñu ne yëpp ah benn des a tudde wala bu fekkee dafay des day xanaa ay juróoma ci des ak ay ñett yu dangereux yëpp yu yonent waxoon bu ngeen ko gisee yowmal xiyaam jege nag teg nañ ci bët ñetteel mooy jagoo jagoo bu yàlla jagoo bi ilmil xëy bi xam-xam xam kumpa yàlla rek moo ko jagoo fala yaalamul xëyba illa allah kenn xamul kumpa ku dul yàlla suba lii mooy xew waxal loo xam loolu ci loxo yàlla la nekk waaw maa ngi doon seetaan benn bis tunkara ak benn waay waa ji na ko boo bëggee ma yokkal la say fan ne ko yow mi dig la ilaha illa anta subhana léegi fan la ñuy teg aaya yi di ñëw sunu kanam bu kanamee kumpa yàlla rek moo ko xam yàlla rek moo xam luy xew suba yàlla rek moo xam fii ak gée lu fiy xew yàlla moo xam ñun fan la ñuy fanaan yàlla moo xam sunu dund gi lan moo ñu ciy fekk lan moo nuy dal loolu yàlla dong moo ko moom ak ñenn ñoo xam ne xamal na leen ci dara ku mu ci xamal xamal na la ku mu ci xam comme yonent yi waaw ku mu ci xamalu nag yëralu la ci kon yow amoo droit de ci wax mu ngoog képp koo dégg daal muy wax ci kumpa muy wax ne xam na kumpa muy wax yàlla xamal na ko ci mbirum kumpa yëgal ne dafay wax lu nekk ci ginnaaw dëgg sunu borom subhanahu wa taala moom moo ko yeyoo ñeenteel mooy iza kaana rasul la yamliku li nafsihi naf'an wala darran fa kayfa yatlubu minhu zalik fa kayfa yutlabu minhu zalik su fekkee yonente alayhi salatu wasalaam mënalul boppam dara mënul indil boppam njëriñ mënul jañal boppam lor kon nu ñuy ñëwee ci moom naan ko jëriñ ñu wala lor ñu ah bu fekkee yonent alayhi salaatu wasalaam moom moo mënul lii moom te mooy yonent kon nu mu koy dàqalee keneen bu yonent bi mënoon dàq lor kon bi dee ñëwee ci moom lu mu koy wax deewu ma su fekkoon ne yonent bi mën na dàqal boppam lor kon bi feebar ñëwee da ngeen ñu ne yonent dafa feebaroon bi muy waaj a faatu feebar boo xam ne dafa métti ba dañuy wañ morso di teg ci bopp bi mu naan laa ilaha illa allah inna lil mawti la sakarat sallallahu alayhi wa sallam kon loolu est ce que du ko dàqal boppam est ce que du wax doomam yi deewuñu du ñu dee ah est ce que dina nangu kon sahaaba yi ñu leen di rey muy xeex ah kon nag allahu akbar kon yow boo xamee lii isa arafta hada boo xamee lii yow jullit mu leer ci yow kon ñii li ñuy wootewu di dem ci ay bàmmeel fekk ku dee nga koy ñaan ku dee nga ñëw tiim ko di yuux waaye dama bëgg visa passeport dama bëgg takk ñaareel dama bëgg ku dee nga xam nga ne loolu vraiment ay caaxaan la rek yàlla mii di dund hayyun laa yamut bàyyi laa xibla bi ne la tàllal ma uddu ah woo leen ko ah udduhu rabbakum woo leen seen boroom wa iza saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai nga bàyyi ko di woo ku dee te yàlla nee na ku dee ki su ngeen doon toog fii ba yawmal qiyaam di ko woo du leen wuyu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man laa yastajibu lahu ila yawmil qiyaama yàlla yawmal qiyaama wax de ki ngay woo toog ci wetu bàmmeelam naan ko yaa yaa yaa yaa yaa yaa yàlla neen déggu la de ba yowmal xiyaam du la wuyu te yàlla moom boo ko woowee mu wuyu la allahu akbar yàlla moom boo ko waxee yàlla yaa allah yaa allah mu ne la labbayka yaa abdi ku dee nag moom yàlla neen du wuyu ñeenteel mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam su fekkee moo munul liil boppam munu ci dara munul dàqal boppam feebar munul indil bo dàqal boppam ay natt munul tere boppam dee kon naka la ñuy demee ci keneen rawatina nag ci bàmmeel di ko ñaan kon mbokk jullit yi ci tënk bu gaaw ñaari aaya yi lii mooy ay mbir yoo xam ne moom lañ ci sunu borom subhanahu wa taala bëgg a xamal bëgg a jàngal sunu borom subhanahu wa taala nee na yasalunaka ani saati ayyaana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi yasalunaka gaañaa ngi lay laaj wër la yow muhammadun alayhi salatu wasalaam moo xam lenn ci waa Quraysh la moo xam ñeneen ñu dul ñoom la ñoo laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko kañ la yawmal qiyaam mata qiyaamuha kañ la ko yàlla di amal du benn aaya bi rek jàngeen ci suratul ci suratul naziat yàlla subhanahu wa taala foofu gaay ne ko yasalunaka ani saati ayana mursaha fii yasalunaka ani saati ayana mursaha fala yasalunaka ani saati ka annaka xafiyun anha gaa ñaa ngi lay laaj yowmal xiyaam mu ngi mel ne yow da nga koo xam moom ñu ko la ñu la koy laaj nee na ñu ngi lay laaj yowmal xiyaam kañ la ko yàlla di amal waa kañ la léegi laaj yowmal xiyaam kañ la ndax amal na jaamu yàlla bi njëriñ wala amul ko njëriñ sahaaba ba mu ñëwee ci yonent bi ne ko mata saa ya rasulallah yow yonent kañ la yowmal xiyaam mu ne ko maza itat laha loo ko préparé la gis nga loo ko préparé loo ko waajale kon yow mi laaj yowmal xiyaam bëgg nga xañ kañ la boo nee yowmal xiyaam kañ la ñu ne la fii ak deux fii ak une heure de temps rek fekk préparé woo yow foo jëm ah xam nga tey boo ne woon kañ lay jukki ñu ne la fii ak 10 heures la ñuy dem avion bi daanaka dégg naa 10 heures lay ñëw nooy def fii ak 10 heures nooy def da ngay doo préparé ji waaye yowmal xiyaam boo nee kañ la ñu ne la ci kanam mënatoo préparé terminé amatul julli amatul koor amatul dara terminé jeex na xalaas kon kay di ko laaj amalu la njëriñ xam nga loolu moo am njëriñ bi nga xamee ne day am nga waajal ko sahaaba ba mu ne yonent kañ la yomal xiyaam mu ne ko loo ko préparel mu ne ko bëgg yàlla ko yonent mu ne ko al mar'u ma aman ahab defuma lu bari de waaye day yaakaar naa ne bëgg yàllaa ko yonentam mu ne ko nit ki day ku mu bëgg rek nekk ak moom ayaana mursaha kañ la ko yàlla di amal mata waqtuha waqtu wuquiha kañ lay tabbi wa qiyaamiha kañ lay am moom yowmal qiyam asaa dafa bokk ci turu yowmal qiyam yi mu ne qul tontul allahu akbar baat bi lan lañ ciy jàng qul bi ah lan lañ ci jàng qul waxal luñ ci dégg mooy ki ñuy laaj xamul moom mooy du moom moo xam mbir mi moo tax qul yi ci alxuraan bi yàlla mën na ko waxal loolu lu ma ciy dégg mooy mbir mi nekku ci loxoom bu nekkoon ci loxoom la kon duñ la qul kañ la yomal yaa mu ne ginnaaw suba wala samedi bii di ñëw bu ci topp wala weer bii di ñëw wala at bii di ñëw ah tubaab bi kañ lañ waxoon ne àdduna day tukki ah 2000 loolu 2010 2010 lañ waxoon àdduna day tukki du loolu lañ waxoon wala bëri na daal di ñu wax waaye yooyu yëpp nag ndax am na du am xam nga lu tax du am est-ce que loolu mbirum yàlla la mbirum yàlla la loolu xëy bu la ci yàllaa ko yoree ba pare kan moom moom adduna bi yàlla moom moom adduna am yow bi mu lay sàkk di la fi indi tàgguwu la yow nga bëgg a ñëw mel ne da ngaa fekke fu mu doon wax ne adduna bis bi lay jeexee hatta yonent bi xamu ko xoolal jibril lu muy toll toll toll xamu ko kon keneen kan ku moo koy xam nag yéen tamit waaye dafa bëri ci adduna bi tey ay dajjal ñoo xam ne subhanallah qul waxal innama ilmuha inda rabbi gis nga de xam-xamu bis penc ñu ne ah mu ne sama borom la sama borom rek moo ko xam loolu ca yàlla la nekk man xaw ma ci dara xaw ma kañ la waaw li ma mën daal mooy xam naa mandarga yi moom alaama di ma wax leen ko xam naa tamit bis bi ndax xayru yawmin talaat fihi sams yawmul jumaa bis bi gën a baax jant xëy fekk ci mooy bisu àjjuma ci lañ bind aadama ci lañ ko dugal aljanna ci lañ ko génnee mu ne yowmal xiyaam du jot lu dul ci bis boobu kon bisu lan la bisu vendredi waaye ban vendredi la ban année la loolu mooy wax ci qul innama ilmuha inda rabbi tontu leen ne xam-xamu bis pénc aju na ca sama boroom moom dong moo ko xam waaye laa yujalliha li waqtiha illa hu du ko amal ci waxtoom du ko feeñal ci waxtu woo xam ne moom la ñu dagg ah fii waqtiha al mahdud ci waxtu woo xam ne moom lañ ko natt ne fii la illa huwa subhanahu wa taala moom dong moom moo ko xam ko mu kese moo xam kañ la moo ko natt fan la fan la koy dóore allahu akbar hum. bis bu garaaw inna zalzalata saa shay'un azim loolu la yàlla wax yëngu-yëngu yowmal xiyaam du saa la lañ doon laaj yasalunaka ani saa mu ne inna zalzalata saa shay'un azim bisu yowmal xiyaam yëngu-yëngu mbir mu rëy la lu tax yowma tarawnaha tazhalu kullu murdiatin amma ardaa bis boobu képp ku doon nàmpal xoolal yaay ni mu bëggee doom tey ku ku sa soxna amoon doom mu nga ne ko sànni ko waay ngeen ngeen ma nga ne ko yow sànni ki waay yow foo ko jëmee. lim la da lay xoolaat kii kan la est-ce que kii sama jëkkër ji la nga ne ko yow laay waxal sànni xale bi dum lay def yawmal xiyaam mbirum yawmal xiyaam yàlla nee na képp ku doon nàmpal di nga teg li nga doon nàmpal koy teg romb ko. est ce que foofu la yem mu ne wa tadaaw kulla daati hamlin ku ëmboon day avorté day tiit ba day avorté day toog rek deret di génn lu xew wa tara nnaasa sukaara wa ma hum bi sukaara mu ne nga gis nit ñëpp ñuy dox ku nekk di mandi mandilu di dof doflu fe gaa yi yàlla mu ne gaa yi mandi wuñ de walakin azab allahi shadid allahu akbar ci aaya beneen mu ne yawman yaj'alul wildaanu shiba liir bi day judd rek daal di bi jaaw ndax tiitaange yawmal qiyaam yawman yaj'alul wildaan shiba bés bi nga xam ne nit day judd rek bi jaaw lu tax ah allahu akbar ndax tiitaange gi muy gis tiitaange gi mandiloo baay mandiloo yaay kay kon day mun na bi jaaw doo liir bi ah tiitaange gi tiit bi tiitloo yaay ba muy nàmpal liir bi sànni ko te yëgul ne sànni na ko avorté la koy ëmboon tiitaange googu mandiloo baay ba muy dox di dengi dengi di di mbëkki ay garab yi ki pot làmp ah ba xamatul yoon bu muy jaar loolu kay wax dëgg yàlla war naa bi jaawloo kon xale bi kon mbirum yowmal xiyaam mbokk yi pour ngeen xam ne dafa garaaw déglu leen aaya bi ci tegu yàlla mu ne saqulat fi samawati wal ard asamaan ak suuf sax attanun ko saqula diis na fi samawaati ci asamaan yi wala ard ak suuf asamaan ak suuf si lu ñu àttanoon ñun fu ñu jëm ak moom xanaa xamu leen ne asamaan ak suuf ñoo gën a garaaw nit doomu aadama a antum ashaddu xalqan ami sama banaaha rafaa samkaha fa sawaaha wa atasha laylaha wa axraja duhaha wal arda bada dalika axraja minha maaha wa maraha wal jibaala arsaaha mata xoolal asamaan yàlla nee na moo leen gën a garaaw waaye moom nee na attanul yowmal qiyaam kon mbindeef mu ndaw mi nu mu koy attane saqulat diis na fi samawaati ci asamaani wal ard ak suuf waaye yàlla nee na laa taatikum illa baxtatan du ñëw ci yéen lu dul la leen di bett da ngeen di xëy suba ndeysaan tëdd seen soxna yi dem boulangerie di jëndi bies doore xale yi di tàngal ndox mi am na ñuy nekk ca marché di jënd ñee ña ngay waxaale ñee ngi xëy ñee ngi ci seen oto ah huit heures jékki-jékki rek gis jant bi génn fii wow lii lan la ni fan lañ ko daan gis suba mu génn fii bis boobu fii lañ koy gis gaa yi taxaw nag ñu naan weer di wax rek weer wi génn ne da koy romb vitesse bi weer wi di génn moo gën a garaaw vitesse bi jant bi génn jant bi moom bu génnee comme ni muy génnee rek par suba waaye fii lay génnee weer wi nag bu génnee da koy bëgg a doubler vitesse bu garaaw lay génnee ah ne day double jant bi su demee droite mel ne oto bu bëgg a double moromam noonu ñuy def nii nga bëgg ko double mu ñëw coince nga ñëw fii mu coince day dem droite jant bi topp mu ñëw gauche jant bi topp su ñëwee ci digg bi rek yàlla mu ne wa jumia sams wal qamar ma explosé leen ñoom ñaar ñu mbëkkante ah lu tegu ci aaya ba keroog doomu aadama la taxaw naan yaqulu l insanu yawma idin ayna al mafar woy ana rawukaay bi woy fu may jaar ba raw jant bi ak asamaan si jant bi ak ak weer yi bu ñu mbëkkantee ah jant bi ñaata ñaata ñaata ñaata la ëppee suuf si xam ngeen ko weer wi ñaata la ëppee suuf si ah waaw weer wi ëpp suuf si jant bi ak weer wi lu ëpp jant bi jant bi ak suuf si weer wi ak suuf si lu ëpp suuf si jant bi ak suuf si jant bi léegi kon weer wi ak jant bi bu ñu mbëkkantee waa suuf kay ko duñ ko fekke ah ah gis nga moo tax yàlla mu ne wa jumi asams wal qamar ma explosé leen dañ leen di boole bëm allahu akbar loolu sa waay ñun ñu toog fii rek gis benn immeuble buy buy explosé nii wala benn bomb wala benn bomb buñ sànni wala benn dënu bu dënu ñëpp tiit ah bu dënu dënu ci ci ci àll fekk la fa lu mu lay def da lay rey kon bu ñu explosé jant ak weer ak weer wi luy xew doomu aadama ndeysaan xam na ne tey la yowmal xiyaam mu ne fan laay rawee yàlla mu ne ko rawukaay amul keroog ila rabbika yowma isinil su keroogee yu nabbaul insaanu yowma isin bima qaddama waxar waaye balil insaanu ala nafsi wala alqaa ma azira keroog doomu aadama xam na boppam donte ne day indi ngant naan waaw man kay soo gisee ma doon kii man kay bëggoon naa kii waaye man kay wax dëgg yàlla c'est que affaire bi xam nga rek business bi moo ma doon gàllankoor quoi mais vraiment dama daan guddee wàcc moo tax daaw ma mën a yeewu fajar pour dem jàkk mais bëggoon naa ko de yenn saa yi sax ma réglé sama portable mais mu sonné rek ma xaw a sonn ma bloqué ko quoi wala alqaama azira yàlla mu ne ko amul tey amul ngant ndeysaan nga gis mu commencé di indi ngant yàlla mu ne xam nga sa bopp bal insaanu ala nafsihi basira wala alqaa maazira allahu akbar suñ borom nee na asamaan ak suuf attanuñ yowmal qiyaam waaye du ñëw ci lu dul da leen di bett gis nga nit ñi dee di bettee da ngay xëy rek dee di programme rek fekk xamoo ne da ngay dee booy tukki waaw rak tak dem ñëwaat fekk da ngay dee doo ñëwaat di tëdd non ba demee da ngay dee doo yeewu allahu akbar moo tax sëriñ bi ba mu déggee ñuy yuuxu benn kër ah diw dee na mu ne kii kooku jar te yuuxu ñu ne ko ku jar a yuuxu mu ne ku tëdd te julliwul gee kooku jar a yuuxu ki tëdd te julliwul gee est xam nga ndax di nga yeewu xoolal dal xel non damay tëdd bàyyi booru 4 heures quoi ma ci julli wala kii rek la ñuy salaatu sax dinaa ko dóor quoi garaawul nga tëdd dee looy wax yàlla. yàlla tudd na ñetti waylun ci alquran ñetti yëpp ci julli la ko jëmee ñetti waylu mu ngi ci alquran ñetti waylu yëpp ci julli la jëm bu njëkk bi fa waylun lil musallin beneen bi ah yëpp ci julli laa wax la jëm allahu akbar ñetti wéyil yëpp ci julli la jëm yëpp ci xuru safara la fa xalafa min baadihim xalfun adaw sala wa tabaw fa sawfa xëyya ñooñu lan lañ bàyyi julli ma salakakum fi saxar qaalu ñooñu lu ñu leen dugal safara ak julli léegi nag ñun ndeysaan li ñuy tiitaroo mooy ñun duñ julli ay nit sax am fit di bàyyiloo nit julli nga ñëw ñu ne la jarta julli julli jaru ko bul julli ndeysaan nga génnaat ne la kay di yuux te yàlla ne ku julliwul safara la jëm li yàlla wax mooy dëgg wala li keneen wax mooy dëgg di ngeen tontu yonent bi alayhi salaatu salaam ne inna awalu ma yuxaasibu bihi al abdu min amalihi yowma alqiyaama lan la allahu akbar al amru allazi baynana wa baynahum assalaa man taraka assalaa faqad kafara waaw léegi aayay alquran yi ak hadis yi fu ñu leen di dugal dama leen koy laaj yéen waa Sénégal aay yàlla wax ci alquran ak hadis yi yonenti wax ci julli fan lañ leen di dugal dañ koy lekk ah wala dañ koy takar laxas ba mu dëgg rek sànni ci mbalit mi dëgg suñu tànk naan amul amul amul amul ba dee ñëw waaye wallahi bu ku dee rek yeewu waaw foofu mooy wax ci yasalunaka gaa ñaa ngi lay laaj yow muhammadun alayhi salaatu wasalaam ka annaka xafiyun anha moo ngi mel ne xam nga ci dara gaa ñaa ngi lay laaj rek saa ñu xëy rek ne la yow yonent yow muhammad waaye yow kañ lay yomal qiyam mu ngi mel ne yow mii da nga cee xam dara allahu akbar ka annaka xafiyun anha mu ngi mel ne yow mii dañ la cee dencal dara waaw ba ñuy tartarlu sax di la ko laaj mi ngi mel ne yow xam nga kañ la xam nga kañ la ko yàlla di amal waaye da nga koo xam mu ne ko xaw ma ko de waaw xaw ma ko mbirum yowmal xiyaam moom xaw ma ko lu nekk moom mun ngeen ma ko laaj ma tontu ba mu des mbirum yowmal qiyaama ndax loolu moom sama mbiru boroom la gis nga delloo na yàlla mbir mi waaye bu doon ñun la fii tey ñu ñëw rek gaa yi ne la yowmal qiyaam oustaz yow kay la yowmal qiyaam parce que du ngeen xaar ba ñu reer ba pare quoi ma wax leen ko tey nga ne xamoo ko rek loolu xaar ba ñu reer wala non bàyyi la ba samedi bii di ñëw quoi gis nga yooyu lañ lay jéem a kii wala ñu naan la ah di la jéem a indil ay mbir yoo xam ne subhanallah comme waa ji mu ne yonent bi moom xam nañ mooy kan yonent baa ngi nii xam nañ mooy kan yàlla tamit xam nañ ko waaye diw mii lañ xamul moom mooy lan alors loolu mooy lan xam nañ yàlla xam nañ yonent bi waaye oustaz kenn xamul la yow yow kenn xamul yow yaay lan la yow yow foofu mooy mbir mi yow lan nga ah yow li tax xamoo man lan la te nga dégg sama papa ngi nii sama yaaya ngi nii année bii lañ ma jur ah kon kay xam nga lan la xam nga ne ibnu aadama la léegi nga bëgg ma koo dindil saa lii mooy suñu problème lii mooy mbir yi yonent bi alayhi salaam gis nga gars yi lu ñu ko doon laaj waaye moom lu mu xamul dana xaw ma ko est-ce que gàcce la ah ka annaka xafiyun anha qul gis nga encore ati lu muy tekki du moom innama ilmuha inda allah allahu akbar ñaata yoon la leen delloo ci yàlla ci benn aaya bi ci aaya yi xam leen ne mbir mi ngeen may laaj waaye nekkul sama loxo waay mbiru yàlla la mbiru yàlla la walakin aksar annas laa yaalamuun gis ngeen aksar walakin aksar annas laa yaalamuun li ëpp ci nit ñi am na ñoo xam ne tey ci Sénégal giñ naa ci borom asamaan boo leen waxoon kañ la yowmal qiyaam ñu ne la des na ñetti at wala des na juróomi at wala des na fukki at dëgg fit pour ñu ne xam nañ dara ah xoolal ki xool nit rek naan ko yow yow di nga dund ñaa nga ngam at di nga ko dund yow may nag boo buggee ma yokk ko mi xool loolu mu grave yow di nga dund nangam mais soo gisee soo buggee ne sax mun naa la ko yokkal waxal waxal rek ma yokkal la ko heureusement ba ko waa ji fen loowee ne ko loolu nga wax amut aw ma at yooyu te mënoo maa yokkal sama at saa est-ce que boobu kese la ak leneen ak leneen ak leneen ah waaw ak yeneen yoo xam ne yeneen koy dund fii bis bu nekk ngeen teg ci bët ngeen gis ko nii jëhëran te alquran da koo dindi ba mu set sunna yonent bi da koo dindi ba mu set fan lañ jëm te ñu wax nit ñi dëgg yonent baa ngi nii moo gën a màgg ci nit ñi waaye biñ ko laajee lan la wax xaw ma qul innama ilmuha inda allah ñaata yoon la ko wax xoolal keroog bañ ko laajee ci ñetti laaj yahudi doon xool yonent bi ndax yàllaa ko yónni mu ne leen dinaa leen ko wax te waxul insha allah lu ko ci fekk lan la woon yowmal xiyaam la woon ak zil qarnayni ak ak ak ak ruu ruu wa yasalunaka ani ruu ah ñu lay laaj zil qarnayni di la laaj ah gaay yi yàlla mu ne dem leen ba suba ngeen ñëw yàlla mu ne ko tey nga xam ne du yow de tey nga xam ne du yow yàlla sori ko ci lu tolloog weer yonent bi am problème ba yàlla naree baaxalaat mbir yi ci kawam di ko indiwaat lan la ko wax wala taqulanna li shay illa an insha allah bul waxaati dara mukk ëllëg dina am wala di nga ko def lu dul nga ne su neexee yàlla loolu lu ñu ciy dégg mooy mbir yi du moom waaye bu neexee yàlla la léegi nag lu tax ñun li yàlla moom nu bu ko foqarti ah lu tax loolu mbokk yi walakin aksara nnaasi laa yaalamuun looloo tax ndax lépp ci nit ñi xamuñu lu tax wa ma utitu min al ilmi illa qalil liñ leen jox ci xam-xam dafa néew dafa limité moo tax xamu leen yàlla rek xam wallahu yaalamu wa antum yàlla xam yéen xamu leen qul waxal yow muhammadun alayhi salaatu wasalaam ñaata qul lañ gisagum laa am liku mënaluma li nafsi sama bopp nafaan njëriñ wala darran mënumaa lor mënumaa indil sama bopp njëriñ mënumaa indil sama bopp lor allahu akbar illa ma sha allah gis nga loolu mu neex yàlla lu neex yàlla rek aaya bi war na noo jàjji laa am liku mënaluma li nafsi sama bopp nafaan njëriñ wala darran lor illa ma sha allah lii dëgg-dëgg su fekkoon ne gëm nañ alxuraan xam nañ kan mooy yonent yàlla muhammad alayhi salaam kon caaxaan yi dund yëpp day jeex tey jii ñun yaakaar na ne am na ñoo xam ne mën nañoo indi njëriñ mën nañoo lor wala ah wala am na ñoo xam ne yaakaar na ne tey suñ la xoolee rek daf maa xool rek sama aju faju allahu akbar commencé di yuux xool rek la ma def ki nga ne daf maa nuyu rek ma wér alaan la loolu yonent bi nee na mëna lu maa indil sama bopp njëriñ mënumaa lor sama bopp benn lor bu ñëwee mënuma ko tere sama bopp bu doon loolu la kon du feebar kon njabootam yi du ñu am problème kon saxaabaam yi kenn du leen rey kon moom du judd nekk jirim wala dund yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni mettee xool leen ko kenn ci ñun fii mënu ko dégg kenn ci ñun mënu ko kon koy bu fekkoon ne mën nay ñoddil boppam njëriñ di dàqal boppam lor kon kay day taxawaa déedéet déedéet naan nii rek lu baax mu ne ñëwal ñëwal yow lu bon jaaral ne demal ne ñëwal ñëwal ñëwal ni ma sama booy di def ma taalee télé bi yor télécommande bi su ma nee nii ñu ne na dem na dem na dem na dem ah taxawal yaa baay taxawal waaw allahu akbar kon yonent bi noonu lay def day taxaw rek yor télécommande am naan nii rek lu baax rek mu ne aca na ñëw sama biir kër dugal leen ko ci magasin bi tees na ñu ne waaw mu ne wax ne lu bon bu ñëwee mu ne na dem ne na dem ne na ma romb na romb kër gi waaye nag gis ngeen illa ma sha allah lu dul mu neex yàlla mu ne walaw kuntu su ma nekkoon alamul xayba ma xam kumpa ma xam suba luy xew kon lastaksartu min al xayri kon lu baax rek laay am allahu akbar law kuntu ndeysaan tey su ma nekkoon alamul xayba ma xam suba luy xew keroog bu ma xamoon ne bu ma demee Uhud dañ ñuy gañe keroog bu ma xamee ne dañuy rey Ali wala dañuy rey Umar wala dañuy rey Ousmane wala dañuy rey Ousseynou su ma xamoon kon lastaksartu min al xayr kon lu baax rek laay wax na ñëw lu baax dara lu bon du ma laal wa ma massani asu lu bon du ma laal lu baax rek gars yi fii kan mooy xam boo génnee fajar ñu wulli la agressé la nangu leen nga yor nga génn wuyu leen ma kan mooy xam ne lii boo ko lekkee feebar nga lekk ko ko xam ne ne ji bi boo ko naanee sa biir daw nga naan ko du ngeen ma tontu ji bi de mu ngi nii waaye boo ko naanee sa biir bi lay daw de ik naan aywa loolu noonu ma koy indi la xanaa da ngaa dof wala allahu akbar sëñ bi lu baax ku nekk sa bopp lu baax nga bëgg est-ce que nit dina xëcc boppam lu bon tukkil nga yëg ay vélo ak tukkil dugg ci 4x4 ban ngay dugg nga naan non non jox leen ma vélo bi ma jéngu ko quoi kan moo koy def fii ci ñun kenn du ko def qul law kuntu aalamul xayba su ma xamoon suba luy xew ma xam kumpa mbir yëpp leer nii yàlla di ma ko woon jëxëran kon lastaksartu min al xayr kon lu baax rek dama koy bëri du ma yem sax ci jël lu baax damay bëri lu baax sama kër samay xarit samay doom samay mbokk ñëpp lastaksartu min al xayr dama koy bëril wa ma massaniya suu lu bon du ma mës a jege waaye loolu loo ci dégg xamul kumpa allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam xamu ci xamu ci dara lu dul la ko yàlla wonoon mu xam ko la ko ca yàlla wonul dara la ca xamut mu ngoog mu ne in ana xoolal ndeysaan day dégager responsabilité in ana man nekkuma illaa lu dul nazirun kuy xuppaate wa bashirun ak kuy bégelaat gis nga man daal lii laa ndaw laa lu yàlla yónni muy bégala di xuppe ah ndaw laa lu yàlla di yónni may bégal képp ku topp yàlla dugg aljanna képp ku mooy yàlla def am safaan beneen ndomba tànk nag amaatuma ko budul boobu kumpa nag moom li yàlla denc ci ay magasin man yàlla xamuma ko aalimul xaybi wa shahada mooy yàlla moo xam li feeñ xam li nëbbu man xawma ci dara ah dara laa ci xamut su ma ko xamoon lu baax rek laay am lu bon duma laal waaye nag ndaw laa lu yàlla yónni may xuppe lan laay xuppaate ku teggi yàlla alku nga ku toppul yàlla musiba dina la dal waaye wa bashir may bégale ku gëm yàlla képp ku ma topp dund sama sunna dugg ajjana li qawmin ñeel ay nit yuminuun gis nga même xuppaate googu ak bégalaate googu kan lay jëriñ ku am iman waaraate yàlla ne innama tunziru man ittabaa dhikra wa xashiya arrahmana bil ghaib ngëm yàlla rek la nit di am ñu waar ko mu yëg dara waaye boo amul ngëm xamoo dara ci lislaam mun la ne yàlla ne na day mel na ci yow ay bërigo yuy daanu rëng rëng rëng rek ngay dégg ay son waaye doo xam mbi mbir mi waaye boo amee iman tarfatal ayn ñu ne la allah ndeysaan rek sa yaram day daw nga commencé yëkk màggaayu yàlla nga commencé gëm borom bi tabaraka wa taala sa iman yokk alquran wax na ne ñi gëm yàlla bu ñu leen jàngale alquran wa iza tuliyat alayhim ayatuna zaadatum imanan da leen di yokk waaye ñu gëmul yàlla boo leen di wax day mel ne ay nag ngay woo ak ay béy wala yàlla wax de inna charra dawaabi inda allah ñi gën a bon ci daaba yi xoolal daaba la yàlla tuddee foofu doomu aadama daaba xam ngeen luy daaba mooy luy dukkat di dox xar daaba la fas daaba la mbaam daaba la doomu aadama daaba la parce que day dukkat day dox waaye ñi gën a bon ci doomu aadama yi mooy ñi nga xam ne dañoo tëx dañoo gumba dañoo lu duñu dégg duñu gis lu tax ndax seen xel moom lañ amul amuñu xel kon sunu borom subhanahu wa taala mbokk juliti aaya yu mel nii def nu koy wax jëmale ko ci yonent yàlla muhammad nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam mooy gën gi mbindéef yàlla adressé ko wax yii kon keneen kooku mos fa déggati après léegi lan la su la yàlla ne yowmal qiyaam muhammad li muy màgg-màgg xamu ko moom mu ne xamu ko gis nga aaya bi ñu ko laajee xul la wax beneen bi mu ne la su ma xamoon kumpa ma xam suba luy xew ma xam weer bi bu dee luy xew ma xam fi ak guddi balaa ma yeewu luy xew kon ndeke xamu ci dara allahu akbar xamu xamu ko ah lu dul lu ko yàlla xam loo yàlla daan yónni jibril mu ñëw ne ko defal nangam keroog ba muy gàddaay xamul yàlla moo yónni jibril ne ko tey bul fanaan màkk wala chaque jour kumpa yi yàlla moo koy won di ko ko xamal waaye moom amul lenn lu mu xalaatal boppam wala mu xame boppam wala mu joxe ci décision ne lii lii la lu dul mu xaar borom bi tabaraka wa taala indil ko wax yu jibril wàcc ci moom wax ko kon mbir yi dafa war a leer ci ñun kenn koo fi dégg muy wootewu kumpa wala muy wax nangam ak nangam xamal seytaane ko topp wala dafa jommi dafa jommi wala ay jinne la àndal loolu kese la te li ëpp nag léegi ci nit ñi ay jinne lan yor jinne yee leen di informé te jinne yàlla wax nañu ci alxuraan ci suratul jinn lan la fa yàlla wax wa annahu kaana rijalun yahuzuuna bi rijalin min al jinni fa zaaduhum jinne yi ñooy làqatu ci ginnaaw doomu aadama yi di leen jokk yokk ay kii koo fi gis muy wax ci mbirum jinne dafa associé ak jinne jinne day defal jinne dara jinne di ko defal dara waaye nag kañ nga la la jinne di defal dara mooy soo murtadee boo bàyyee dara ci arkaanul islaam ngay julli te doo jàpp wala ngay julli bàyyi benn waxtu gisuloon ñu bëri ci ñi ñi yëpp mbirum jinne yi duñ dem julli ji juma duñ jàng alxuraan duñu jàpp dañuy am janaaba te duñ sangu di laal kaamil parce que jinne loola lay wax waaw jinne dalay weddiloo yàlla ba pare farit xaritoog yow waaye balaa ngay dee mu indi la problème jàngeen suratul baqara yàlla lan la wax wa ma kafara suleyman walakin shayatina kafaru yuallimuna annasa sihra wa ma unzila ala almalakaini bi babila haruta wa marut wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala baat baa ngoog ñun musiba lañ la ah bul weddi yàlla de fala takfur duñ xamal kenn dara lu dul lañ laal bul weddi yàlla soo bañee ne waay damay weddi waay waay benn waay ne waay man gàllaaj goo xam ne du ma ñàkk xaalis damay am rek waa ji ne ko mën naa ko de waaye boo dee da ngay dem safara mu ne amul problème waay bon safara naa dem safara kese mu ne waaw mu amul problème defaral waaye ne ko dama ngeen di ginaar guy dund mu dem indi ko dama ngeen di ay matt mu indi mu ne ko taalal matt yi mu taal ka takkal ginaar gi mu dëgër mu takk mu ne dugal ko ci ma safara si muy dund waaw waa ji jël ginaar gi ne ko cax ci biir matt yi ginaar gi di tàkk ba jeex tàkk waa ji ne ko di nga am xaalis da waaye safara nga jëm mu ne garaawul loolu la yàlla wax ci aaya bi wa ma yuallimaani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur bul weddi lu lay wan ne njabar kufru la ànd ak ginne musiba la kufru la yàllaa ko wax mi ngi nii tey kenn wàll gi ci sunuy kii yëpp ay jinne lañ àndal associé ak ñoom moo tax ñu jàpp doomu aadama yi dugal leen ci giraawaali goo xam ne doomu aadama yi tey kenn bañ na ñëpp bañ dañoo lànk bañ a jaamu yàlla illa man rahima rabbuk li moo doon sunu dars tey ñoo ngi jégglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu fekkee am na ay question incha allah